jigéen ñi liggéey ci hôpital Matlaboul Fawzayni bu Touba di benn hôpital niveau bu nekkee ci diwaan bu njaareem nag célébré nañu fan ci weeru mars di bis bi àdduna war nga këpp jagleel mbooleem jigéen ñi ñoom ne nag di fësal ni ci bërëbu fajukaay bile li ci ëpp ay jigéen lañu. ndax bu ñëwee hôpital Matlaboul Fawzayni nga xool personnel bi nga taxaw ci bunt bi gis leen ñuy xëy si ñëw boo compté benn góor di nga si ñetti jigéen ay jigéen kese fi nekk jàmbaare lool. boo xëyee xëy see 8 heures fekk jigéen ñi xëy si ban jigéen rek moo ni du ma xëy si 8 heures ci hôpital Matlaboul ban jigéen moo ni du wàcc 17 heures nga dem ci yeneen institut de santé yi fekk la ñuy naaje xëy di teel a wàcc ñun Fawzeyni ñu xooluñu si lool di roy ci soxna maam Jaara so di xëy heure di wàcc heure. bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu maîtresse sage-femme bi di Koumba Sarr Gueye mi ngi fësal ne liggéey bi gis nañu ci ak yokkute bu baax a baax kon jot na ñu sargal ñi nga xam ne ñoom ñoo fay xëy bis bu nekk te nekk ay soxna. di doxal liggéey bi directeur hôpital bi wax na ko li hôpital bi dafa yokk dafa avancé dafa jëm kanam kon loolu bu ñu ko seetloo ci hôpital bi te mu nekk ay jigéen ñi kese kon jigéen ñi am nañ ci wàll. kon loolu yëpp ñu ñoo ko bay ñu ngi sargal jigéen ñi mun ñu woon célébrer 8 mars te ñun ñi waa hôpital Matlaboul Fawzeyni taxawuñu fii sargal suñu bopp sargal jigéen ñi liggéey ci hôpital bu ñu sukkandikoo ci kàddu président amical bi nga xam ne moom moo lëkkale mbooleem jigéen ñi yëngatu ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba di soxna Jobbe Fall mi ngi fësal ne tey jii dañoo tuddee bisu 8 mars bi soxna Mariama bu somaam jaaratu la ngir xool ci moom ay référence nekk ñu juddoo ci bi di Touba waaye tamit nekk ay taalibe murit am nañ ci suñu kanam soxna Mariama Bousso Maam Jaaratu Laa comme référence ñu am beneen référence bu gën a jege bu dul moom andil ñu tamit Sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kon moo tax bis bi ñu daal di koy jël tey daal di ko koy tuddee jox ko lépp delloo ko ko ngir mu wan ñu yoon. ne 8 mars jigéeni hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba daal di koy màggale ci ab dox wër biir l'hôpital bi lee waaye itam jeexal ci waxtaan woo xam ne ni séq nañu ko ak njiitul hôpital Matlaboul Fawzeyni di docteur Makhtar Lo waaye itam ñuy fësal daal ab message boo xam ne ni ñu ngi koy lancé ci mbooleem amical bi nga xam ne mu ngi yëngatu ci Matlaboul Fawzeyni bu Touba ak bépp liggéeykatu jigéenu réew bu Sénégal gis nañ si suñu bopp bu baax ndax bu ñu gisee am directeur boo xam ne daf naan jóg leen yëngu def leen nii ma jàppale leen lu ñu teg suñu loxo mu dugal ci lu ñu teg lu ñu décidé mu def ci loxoom kon gis nañu suñu bopp bu baax ci hôpital bi gis nañu suñu bopp ndax góor ñi fi nekk jiital nañ ñu jox nañu suñu cër jox nañu suñu gëdd si service yi ñu nekk aussi yërëm nañ ñu yiir nañ ñu ba luñ fa bëgg dañ koy am ñaaxaar rek bi ñu ngi xëy 8 heures damaa bëgg léegi ñuy xëy 7 heures demi ñu ngi wàcc 17 heures damaa bëgg ñuy wàcc 18 heures ndax feebar amul heure amul waxtu waxtu bu nekk lay fëgg nit waxuma jigéen ñi rek waaye góor ñi fi nekk si ñu médecins yi nga xam ne ñu jiite it ñu leen di soñj ci loolu ñuy xëy si avant waxtu di wàcc après waxtu malaat bu ni salaamaaleykum amul sonn amul tay nañu def na bàyyi faal bi rek takk suñuy ndigg te recevoir ñëpp fat leen te ñuy ci barke xaadimal Moustapha ci barke Soxna Jaara mu rëddal luñ suñuy loxo ñun ñi waa agent hôpital bi li nga xam ni malaat bu ñëw bu ñu tegee suñu loxo ci kawam yàlla saafara feebar ci ab fàttali 8 mars bi le nag ñu ngi ko defee ci biir hôpital Matlaboul Fawzeyni ci ñi nga xam ne ñoom ñooy personnel bi lëkkalee kaal bi waaye itam ñaaxaale ñëpp ci jàngooy coronavirus bi boole ko ay matukaay yu mat sëkk ci wàllu cet ak cellal